بسم الإله فن الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله فن الدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillaahi fiinin addaar yaa laaw safi baqaa abihim li fiika yaa laaw yaa man lahul amru yaa man laa shariika lahu auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbi alamin la hawla wala quwata illa billahi alil azim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw sante sunu borom subhanahu wa julli ci moustapha sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim noo ngi ñaanal sëriñ tuba cheikh mouhamadul muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal lool te gën a doole ak wéram kàttanal ko ba naal yi mu naalal islaam yëpp mu àggale ko te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di am mbégte nag bokk yi di santaat yàlla mi nga xam ne mayaat nañu ñu toogaat ci jataay bi nga xam ne jataayu fàttaliku la waaye jataayu nafaraat la waaye jataayu bind la nag boo xamante ne bii ki ñu koy seqal di cheikh Mouhamadul mustafa ibnu cheikh Abdoul Khadir Mbacké moom Serigne Touba Khadimu Rasoul ñu di ko baaxoo ànd ak moom saayu yu màggaluk sëriñ Abdul Xaadir jege muy waxtaan wu am solo woo xam ne da koy def ci ndigalul kilifaam di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi jëwriñu kër sëriñ Abdul Xaadir ak mbooleem njabootu Cheikh Abdul Xaadir gépp mbokk yi nag ñu fekkaat ko fii ci toolam yi nga xam ne moo di jànnatul firdawsi nekk ci yoonu njurul di tool yoo xam ne ak Cheikh Salih Mbacké moo ko ko tànnaloon jox ko mu di fi liggéeyal yàlla di fi tarbiya waaye di fi jaamu borom bi subhaanahu wa taala ñu ñaan sun borom mu gën a guddal aw fanam lool te gën a dolli ak wéram te gën koo kàttanal ci liggéeyub sëriñ tubaab bi te lu mu weesu am ci ngërëmul sëriñ bi ñu fas yéene ànd ak moom rek ci nafaraat ay bind yoo xam ne boo ci jël rek te settantal ko danga ko mën a jariñoo ba ba ngay dellusiwaat ci jataay bu mel nii <clears throat> lépp di ay aayee alquran wala ay hadis yonente bi sallallahu alayhi wa wala ay nettali lenn ci magi mag ñi nga xam ne àndoon nañoo sëriñ bi wala sax muy waxi sëriñ bi wala ñi nga xamante ne bi dund nañ ak sëriñ bi kon sëriñ bi ñi ngi lay dalal jàmmu ci télévision bii di lam Lamfal TV eh, fas yéene ànd ak yow ci jataay bi nga xamante ne bii noo ngi ñaan yàlla nga yàggu koo teewe lool yàggu koo taxawee ci barke Serigne Touba. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mboolem mbokki jullit yi di nuyu mboolem mbokki taalibe yi di ndokkeel jullit yépp ci turu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdoul Khadir Mbacke mi nga xam ne moo jiite kër gi ñu ne muy kër Serigne Abdoul Khadir Mbacke maa ngi leen di nuyu ci aw turam di leen sant ci aw turam di leen ndokkeel. di siyaare nag ci aw turam cheikh muhammadul muntaxa ayyadahullah wa nasarahu di ko siyaare ci turu kër gépp di ko siyaare ci turu yoon wépp di ñaan yàlla yàlla dëgëral ko te dimbali ko di ñu yàgg topp ci gannaawam ñi ngi nuyu nag mbooleem fu ab jullit ne ndax dañoo jub ci xew-xew boo xam ne ki koy defal muy Cheikh Abdoul Khadir Mbacke doonoon na koo xam ne jullit ñëpp la bàyyoon xel lislaam jépp la bàyyoon xel yoonu murit wépp ku yaakaar sëñ bi belaloon na la loxo ci ay ñaanam ci ak yëgam ak ci itteem kon munaa sabab ganek addunaam bu jegesee luñ def lu dul fàttali ko jullit ñépp fàttali ko taalibi yépp lépp lu ci waaye doon def ci jàngal ko alxuraan jàngal ko xasida salaatul ko ala nabi xasida nag lépp a ngi ci moom nañ xasi salaatul ala nabi lépp a ci biir ku ci ne ñi ku la cay sa wàll nga def ko ku man jàng xasaayit ku man jàng alxuraan ay kaamil ku man def salaatu ala nabi nga defal ko ko yéene ko tiyaaba ji yàlla yokk yokkal ko ko dolli ko fam ne ndax sëriñ bi nee na isi du'a yanfahu maytan fil xubóor wa yanfahul xayya wa yujibul ujóor ñaan dana jariñ kuy dund waaye dana jariñ ku fi bàyyi ko te te du doy ndax lu baax du doy ñi ngi leen ci ñaa ñu ngi leen ci soññ ci bis bi di bëgg ñépp gën koo gën cee farlu gën ci yokk itte gën koo fonk gën koo dundal gën cee taatan si it te rafet njort ci ne lu ci waaye taatan si bu àndeek positif yàlla mën na laa dimbale ba nanga ko ci yaakaare yàlla defal la nu kawe njort noonu turandoom nag sidna abdul xadir jeylaani mas naa am boo xam ne dane na ñëpp indi bagaan yi ku ne indi sag bagaan bañ ko indee ku ne indi sag bagaan rek taaj muy romb bagaan yi gum romb wursa ngi ci mi ngi ci téere yi boo dundee boo yëree xayaatu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ak karaamaatam ak xajaayam da nga ci gis boo boo doxee tuut mu mu génn rek ñu fekk ñu rangale bagaan yi léeg-léeg mu romb bagaan wurus wurus yàlla def ci wurus ba mu xaaj am yoo xam ne da koy duy ba fees am yoo xam ne day sàng li wax wolof di wax sàngataat rek yo ba mu àggee mu ne ah kenn ku ne sa positif laa la duyele ku ne la nga indi woon rek loolu laa la duyele <laughs> kon nag moom it yaakaar naa ne ku ci taatan si noonee rek ak ànd ak yàlla mën na laa defar ci barkeb sëñ Tuubaa lu kawe sa njort kon nag ñu ngi leen di nuyu di leen soññ di ñaan yàlla ñu àgg ci ak jàmm te weesu kook jàmm te defe ko ni ko borom bëgge te yàlla defal ñu ci ak ndam ci barkeb sëriñ ko defee nag ñoo daal di xam ne ma daal ne tuhaddul munasabatu diiniya fursa muwaatiya fi xayaati rijaali alxamaaliqa li taamuli wal muraajaha wa istixlaasi duruusi wal ibar wa haadihi dikra tuaddu min almunasabaati alazima allati laa tajuusu an tamurra alayna doona an tatruka asaran fi tafkiirina wa masaari xayaatina fa xayaatu cheikh abdulxaadir mbàkke fa xayaatu cheikh abdulxaadir mbàkke kulluha tudakkiruna bilmahaani al islaamiyati nabila wa tuhayi'u lana fursatan muwaatiya lil xusuli ala taaxatin ruuxiya tujaddidu xayaatana wa tusaxidu afkaarana li annahu kaana aadilan muhibban lil adli wal adaala fi kulli shay kathiiral kathiiral mayli ila rafati wa rahmati wa nusrati duafa kama kaana yuxsinu ila al ixwati wa yasuuruhum wa yacuudu mardaahum wa yastashiiruhum fi kasiirin min al umuuri wa yastamihu ila nusihim wa kaana kathiira taxaafuli han dunubi ashaabihi yasmahu min ahadihim maa yakrahu wala yuhallimuhu bi dalika wala wala yataxayaru alayhi wala walaqad araftuhu han qurbin wa ahjabatni gayratuhu ala diinihi wa ala alislaami bi sifatin amma wa qusaara alqawli innahu kaana masalan raa'ihan lissalaahi wattaqwa wal istimsaaki bilkitaabi wassunnati fa jasaahu llahu anna xayran munaasabab ganek àdduna ak Sëriñ Abdou Khadir force munaasabab euh, munaasabay diine yëpp nos la nos ci wolof mooy occasion am nos la boo xam ne boo xam ne bu bu ñëw la dëpp boo xam ne day day dëppoog sens war a am ci dundub ga mm, gaayu baax yi nga xam ne eh, maanaa ay ay nit ñu rëy lañ te am doole mooy li li nga xam ay ngand daal li wolof di wax ngand ab nos la ci si eh, munaasabaatu diini yëpp am nos la boo xamee ne si dañ ciy fàttaliku ñu mag ñu mag ñooñu ngir setantal ak waa ak ak ak nafaraat seenub dund ak jël ci ay leçon maanaam ganek àdduna eh, mën a bu ñëw bu ne occasion la boo xam ne buñ ko dee defal ci niti diine yu mag yi occasion la ba am nos la boo xam ne mën na laa indil nga settantal nafaraat jëlaat bind ngir fàttaliku fi nga war a jaar bii ñu toll nag ci di ko def bokk na ci yu mag yi nga xam ne wërta jaar jàll te bàyyiwut jeexit ci ñun wërta bàyyi jaar jaar bàyyi te bàyyiwut jeexit ñun suñuy xalaat ak suñu jaar jaari dund ndax Cheikh Abdoul Khadir Mbacke léppam dañuy fàttali dundam bépp dañuy fàttali maanaam lislaam dañuy wutalit am nos ngir ñu amaat kattan gu bees ab sars ñi nga xam ne courant day aajawaat sars euh, euh, téléphone bi di aajawaat sars ni ni tug diine ku ne da ngay da nga sarse lu mel ni lii ak i kemam nag ci yooyu nga war a sarsiwaat sa ruu ba mu amaat kàttan ba man koo ñawalaat ba mën a sa dund mën a yeesaat sa xalaatit mën a daggikuwaat ndax moom mii nga xam ne moom lañ toll ci di ko defal ku maandu la woon ku bëggu maandute ci lépp ku bari woon yërmande ku daa dimbali ñi néew doole ku daa rafetal digganteem ak ay bokkam yépp te di leen nemmiku kum gëj a gis seeti la te te ku muy seeti ku ne day wax ne nit ku ne la la war ci moom moom nga war di eh, def te la ko war ci yow bu ko seet waaw ku daa ku daa ne seeti ku wopp ku ne dala daal seeti ba ci bisu tamxarit yi ñu ku mu yëg ne wér di nga dana dem seeti la ci bokkam yépp kum dégg ne wér di nga fii ba njaareem day dem di seeti ci hôpital yi noonu la bindoo woon ku daa diisoo la ci digganteem ak ay bokkam lu ne rek du génn fenn ci dëkk bi bi fi sëñ Mourou Moussa di ne wala sëñ Fall wala sëñ laxat te di mu tàggu ji ko bu ñëwee it dana ñëm yëglu ji ko waaye du génn te tàggoowut du ñëw yooyu nuyoo jiwut kon noonu la fonke woon kilifteef ku daa seeti bokkam yépp la te fa ma yaroo kër Sëriñ Suhaybu bu doy na ci misaal ñaari weer yu ne wala gën jaa bari lu mat ñetti weer mu ñëw fa daana dégg déglu it laabiré yi ko bokk yi laabiré loo ko mos a laabiré dalay wax ne maa ngi mel ne ku doon bay nga gisu ñax ne ma ma ak ñaxa ngi ne ci tool bi ku daa ku daa dëmmooyu tooñ yi nga xam ne ki ñi ànd ak moom ñi ngi koy def dara ko da ko daa dëmmooyu loo ko ci bëgg wax du ko nangoo dégg te bu ko xamee it du soppi ci nam la jàppe woon dara te doo xam ne it xam na ko <laughs> doonoon na koo xam ne xam naa ko bu baax ci jege waaye yéem na ma nim fiire woon ci diineem ku fonkoon diineem la te fiir ci ak ci lislaam yëpp kon bu ñu doon tënk wax ji daal dañuy wax ne mm, jëmm la woon joo xam ne royukaay la woon bu yéeme ci baax ak ci ragal yàlla ak ci lii ñu amul lu dul moom muy fonk sëñ bi euh, lépp royukaay la ci ku ku jàppoon ci ndax kenn ku ne rekk na la sëñ bi séddee ku jàppoon it ci alxuraan ak sunna ndax sëñ day lépp lu baax rek da ko ëmb téye wet goo bëgg a xool rek boo xoolee da nga fekk kennam ku mel noonu <laughs> te fekk lenn la ci li sëñ bi yor <laughs> kon noonu la ko yàlla binde kon tey nag waxtaan wi fi ma ko bëgg a def ginnaaw tënk naa ci dundu dundub sëñ Abdou Khadir mooy ginnaaw nit ñi dañ maa laajaloon ne ma dama laaja ñu sëñ Saliou ginnaaw moo fi mujj ci doomi sëñ Touba lu ñu war a def nit ñi lu ñu war a liggéeyal sëñ Touba tamit lu wéy bi ma ko laajee dani ma xam naa liggéeyub Sëñ Tuubaa dal mooy nañ yar gone yi te jàngal leen waaw ba ma ko laajee wax. ne ma ne ko ah man de bokk dañ ma laaj loo ne ma naa la laaj ndax dañoo bëgg xam loo xam ne daal waxtu wu ne ku ci ne yaa ngi liggéeyal sëñ bi mu ne man yar gone yi te jàngal leen ndax gone goo ko ma sa indil de da wax nanga ko yar jàngal ko moo tax tey waxtaan yi ci ma ko jëmee ci yar mm-hmm. te te sukkandiku ko ci waxi sëñ bi. sëñ bi dafa wax ne ilam abaana llaahu fi daareeni bi fadlihi subhaanahu nooreeni bi anna xayra ma bi anna xayra ma bihis daanal fata talaasumul adabi xay suma ata na ngeen xam ne yàlla nu yàlla may ci ñaari kër yi ñu am ci ñaari leer na ngeen xam ne lugu nit di waaje te xoog teggee na ko gën loolu la sëñ bi wax li annahu bihi ila rrahmaani yasilu abdun wa ila aljinaani lu waay am ci teggin ci la ko amee ku àgg ci yàlla ci teggin nga àggee ci yàlla waaye boo amuti teggin doo mën a àgg ci yàlla wana taxoo bi fa kullu man bi gayrihi raamal wusool li xadratillaahi foo xumrun laa nabil képp koo xam ne ba nga àgg ci péew yàlla ba te ko daane sëñ Tuubaa ko daa bëgg a àgg amuti teggin moo tax mu xëy daanu <laughs> ku baax ki daan wax loolu kenn képp koo xam ba nga àgg ci pay yàlla ba te yoroy teggin ab dof nga boo mutum xel wana taxoo bi annahu kaada yakun sulu say diini fa faddaluhu mubin sëñ bi nee na diini bu doon ñetti xaaji ñaari mooy teggin boo xasee am ñaari yeeg boo xasee ami teggin rek bu diine dee ñetti xaaj ñaa ñett ñàkk nga ñaari wam wam walla si jaxaala xusnal adabi yox fii jaxaalatan wa qubhaana sabi sëñ bi nee li tax teggin baax rafeti teggin dana nëbb ak réer dana nëbb askan wu bon boo amee teggin sag réer kenn du ko xam saw askan bu bu ñamaayee kenn du ko xam saa wa innil yawma soo ijaaba baadal muridina sawil inaab sëñ bi nee moo tax bi mu nekkee gànnaar sëñ Mor Kuna Mbàkke ñëw ne ko du ñoo bëgg nga defal ñu téere boo xam ne dañuy dañuy tax ami teggin sëñ bi daal ko ci tontu nag bandal muri diine jooju maa ko dégg sëñ Abdu Xaadir mu ne ci sëñ Mor la <laughs> mu ne xattale boo nazman xawaata adduba li yata addaboo wa zaaka wajaba mu ne dañoo sàkku ci man ñu fii ci gànnaar ma defal leen téere boo xam ne dañ cee bëgg a di amee teggin ma seet ko te xam ne lool war na <laughs> kullu man bi xayrihi raama tibaa fa innahu yu'ramu fawsan wantifa sëñ bi nee na képp koo xam ne sàkku na képp koo xam ne sàkku nga topp sunna te jaaroo ci teggin na la wóor ni xañ nañ la ak texe ak jariñu sëñ bi daal kuy tënk nag xam nga moom uh, njariñ lu ne la uh, fi ñuy jàppe yàlla daal da ko xam fréquence yi ñuy jàppe yàlla daal da ko xam <laughs> lu ne rek la ci gën a gaaw dala la koy wax mu ne tariqatul adabi rahmatu saxir kal abi wal ummi wa tawxiirul kabir wa jaxalu mislika ka nafsika sawa li wa ci xaalixiin xalasistawa yoonu teggin buñ la ko doon wax bi ci gën a gàtt mooy boo dee mag yërëmal gone def ni ko bàyyam ak ndeyam di yërëmee mag moo gis wekk ko bu xarit daana wax ne gan ak ak gan Eh, ak mag kenn du leen yar oh. <laughs> nee na eh, nee gan kenn du ko yar mag kenn du ko yar dégg naa ko ci moom <laughs> bokk ci yar nga jéem yar gan ak jéem a yar mag <laughs> mag bu juumee ci sa kanam it bul bul ko wax dara eh. dégg ko moo tax suñ say daane nettali am nee koo xam ne sëñ bi da ko yónni mu daw daw dem nee na mu daal daw euh, mu daal daw wooye mag ma xam nga boobu mos bu la ku baaxee ne demal wooyali ma diw bu ko léegi dañuy ci ngone te daw ba demee nag bi mu ndeysaan euh, da ko woo rek daal xeluwaat mag kii ndeysaan bi mu ak sëñ ndax mu mag la te bëgg bëggul mu ñëw ni sëñ bi agsi naa te ko agsiwul waaw sëñ bi agsi na ko boo liggéey boo yeetee boo wootee mag dangay topp ci ginnaaw bi mu jógee bi mu jógee mu daal jóg yére yi suuf si suuf si eh, dañe ci kanam fi mu taxaw mu ne ko boo toogatee ci jataay boo booy jóg te ay mag ne fa da dem ba sori nga soog a yële bi yére yi da meeb yére yi ndànk muy ñaar mu ne ko mbàkke tuub naa ko mu ne ko tuub de baax na waaye tuub tuube it baaxut <laughs> tuub di benn la benn ci gën waaye boo juumee dëkki juum ni di tuub mooy ba ci gënut <laughs> muy ñett loolu <laughs> daanaa dégg siñu saali di ko nettali kon nag yàlla nu yàlla dimbali kon noonu lañ doon yee kon yee uh, ak ak sëñ bi daal ci dolli ne ak koo def nga de ko sab kem bu ne nga def ko ni sa bopp looy bañal sa bopp bala ngaa solal nit dal bala ngaa solal nit mbubb solal ko sa bopp ba njekk na ceeb ndit waaw suñu du xet mooy way wi bu jekkee ci yow boo mën nga ko solal waaye boo nee li ah lii di wax yàlla waaw <laughs> bu ko solal kenn farham saxiran laa takun muddaqira anhu layaadan min nasihatin tara fiha laha fiha lahu rushdan wa waqiril kabir walaw raaytahu daifan wa xaqir mu ne na ngay yërëm gone te bu ko dencal dara ci laabiire loo goo xam ne xam nga ne lii njariñama képp koo xam ne gone la ci loo xam ne njariñama donte da nga koy wax mu di la mere wax ko te bu subaa boo gisaatee waxaat ko ko waaye bul wax bul bul gis lii xam ne njariñama nga ne ci ba bu doonee mag na xam ne yow daa ko wax lu baax waaw wa min taaddu ubika an laa tanzura xaqan li nafsika xalaa saxsin tura lii mooy li ma doon tara annaka lasta mustaxiq say an min atansim mi man xad yamiq bokk na ci teggi nit bul yaakaar ne kenn war na ko ci yow yow nag yaa yaakaar ne man àq war na ci moom <laughs> bokk na ci teggi nit bul gis kenn ni naa ci kii dara ci màggal koo gis bul yaakaar ne yeeyoo nga ci moom ak màggal lu mu la lu la jox ci màggal na nga jàpp ne jox nga ma lu ma ëpp <laughs> noonu la suñu jàngale <laughs> nee na balix tabir min nafsikal aadaaba wala tutaaliban bihil asaaba sayte digal naa la teggin nga di ko xool ci sa bopp rek di jubbanti sa bopp te waaye bul bul sàkku nag ne ne faw ñi may àndal ñëpp man teggin ñi ma am lañuy am ci man am ko ci déedéet sa bopp rek loo loo looy jubanti dee ko jubanti ci sa bopp bu ko dee eh, bu ko bu defee da nga da daal di mën a am ndimbal wakkun maxan naa si jami xan daxara kaa kama tuhibbu an yakuunu maxaka ku bëgg a ànd ak nit ñi sëñ bi nee na ni nga bëgg nit ñi di ko àndeek yow dee ko àndeek nit ñi ñu bëree bari loolu duñ ko duñ ko seetlu waaw nit ñi bëgg ku ko àndeek ñoom rek la ñuy waaye waaye duñ seen nag nii <laughs> ah déet nii <laughs> wasbir ala sabbi wala tujib ahad wa kun kama xaalal adibu wala xat sëñ bi nee na ci adduna yi da ngay muñ ŋàññi bu ci tontu kenn waxal rek la borom xam-xam ba waxoon ne wala xat amru ala la imi yasubbu nii wa ahifu suma aqulu la yaanii nii moom la sëñ foofu nee na am na borom xam-xam boo xam ne xat amuru baraana bu ma wala xat amuru amaana bu ma rombee ala lay mi ci aji yamaay yesub bu nii mu di ma ngaañ waaye waañ fa damay feggoo rek su ma xool topp may wax laa yeex nii jubluwuma léeg-léeg romb ko yamaay mu di ma léebu waaye dama na xam naa taxuma ko wax taxuma koo jóg te xam naa ne man lay wax <laughs> <laughs> isit tasaabubu maha takaasu bi min aqbahil xisaali kattadaaru bi nee na ŋàññante ak weddente jikko ji yamaay la moo bu ku ci woo moo moo xeex moo dóorante ñooyam jëru jëru jëru sori wala tusaahib in aratta suhba saa safahin aw hasadin aw raxba sëñ bi neen boo di ànd bul bul ànd ku bari xeymam te mu upp ñetti ñi bu ci ànd ak kenn bul ànd ak ku dese wala ku iñaan wala ku bari xeymam teef boobaa ko ci kenn mënut ci xarit <laughs> wala tujaalis xayra man bihi tusaat diinan wa xaqlan diina diinan diinan wa xaqlan abadan tanal muraad sëñ bi nee na boo bul jekkiwaale kudut koo xam ne danga ci dolli koo diine wala mu xel waaye képp koo xam ne bu doo ci dolli koo diine doo ci dolli koo mu xel dee teet ab jataayam mu ne wa axbaroo bi annama al maru ala diini xalilihi xadisan nuqila sëñ bi nee na toxal nañ ci addis ñu wax ne nit ku ne wan ma sab xarit moo wan la si jikkoom moo wan la sa jikko koy àndal ak lee nga mel ne <laughs> moom lay wax ci masaali nan tax du chak la ko koy koy mujj di niram mm-hmm. mel mel ne moom mm-hmm. xurwee daal booy bañ Eh, booy xuru indiwee booy bañ ku ci tudd mooy nga fexe ba bul ah, bul wàcc ca xur wa rek salaamatun min hindima ahliha an laa taxal la dahra fi waadiha indi mee bëgguma ku tudd ci xuram wee buñ la fay seen ak mën eh, mu ne moo tax nag boroom xam-xam yi ne kon fa tiflu idan saxifatun bayda kon boo ko seetee boo ko dee seetee da xam ne gone kayit weex tàll la naqiya fi aydi abawayhi wa man yurabbi fa in ahsano tarbiyatahu nasha'a saalihan wa in asaa'o nasa'a ala suu'i wal fasaadi wa min thamma fa inna abaai wal murabbina an yudriku an al atfaala amaanatun fi ahnaqihim yusalawna anha amaama allaahi xasa wa kon nag na ngeen xam ne gone kay du weex tàll la bu set wicc la ci loxol ndeyam ak baayam ak ñi ko yar mm-hmm. bu ñu rafetalee yar ba mu sosu doon nit ku baax buñ ko ñaawalee mu màgg ci yàqu ak lu ak bon mm-hmm. kon baay yi ak ñiy yar war nañoo xam ne gone amaana la mooy lu coloré la gula yàlla teg sa digganteeg moom boo xam ne dala ko yan muy uh, dogalub yàlla bu ñëw mu yan la ko des na ko amaanatu mooy coloré rek mooy uh, inna xarab na lamaanata ala samawati wal jibaali fa benn an yaxmilnaha wasfaqna minha waxamalha linsaanu <laughs> lu yàlla yene andi ko nga ne mën naa ko ba joxante moom couleur ba bëgg cee génnaat eh, di yoon tey dañ dees na ko laaj dees na li dees nañu ko laaj ci kanamu yàlla jëlee nañ ci ibnu xomar radiallahu anhu mu ne dégg naa ci bi mu ne kullukum raahin wa masulun an rahiyatihi wal imaamu raahin wa masulun an rahiyatihi wal mar'atu fi bayti sawjiha raahiya wa masula wa masula an rahiyatiha wal qaadimu fi maali sayyidihi raahin wa mas'ulun an rahiyatihi wa min huna fa in al ihmaala fi tarbiyati awlaadi ihmaalun lil mas'uliyati al manootati bil aabaa'i wal mujtami kulli wal mujtamaci kullihi wa yatarattabu waqiima kon nag yonent bi dafa wax ne ci ci Ibnu Omar solo dégg na ci yonent bi mu ne kenn ku ne yéen ci yéen ab sàmm la te des na ko laaj la muy sàmm imaam ju ab sàmm nga dañ la laaj boo ëllëgee ña nga doon sàmm mooy kilifa ak diine gu rek jigéen ju ne ci néegu boroom këram ab sàmm la boo ëllëgee dinañ ko laaj ba xam la mu doon sàmm ab surga bu ne wala koo jàpp di ko liggéeyloo ab euh, am na mas masuuliya boo xam ne war na ko sa digganteeg yow moom it boo xam ne bu ëllëgee des na ko laaj la mu doon liggéey kon nag ci la ñuy ci fii ne neenal yar gone neenal masuuliya bi la yàlla gàdd teg ci sa loos la ci responsa responsabilité bi ñu teg ci sa loos bi ñu teg ci bàyyi ak ci bi ñu teg ci société bi kon te loola la ca mën a juddoo mooy xawaaqi bu wax yi ma muy mujj gu rek ko ko neenal kon yàlla na ci yàlla musal kon nag li ci topp ci nga xam ci teggin la bokk mooy wa birra walidayka warfuq bihima wa kun mubadiran ila amrihima wantay xan jumlati ma xat na xa xan hu rabbika fa yasdaada ulak nga xam nanga na nga topp sa ndey ak sa te di leen dimbale te buñ leen te ndigal luñ def nga di ko njëkkante buñ la wax dara nga ne déedéet ni ko alxuraan waxee bu leen wax uffin mbas wala tanharhuma bu leen gëdd wa qul lahuma xawlan kariman di leen wax wax jun tedd ju nooy ni murid di daa waxeek sëñ eh, sëriñ bi rek wax fit lahuma janaha dulli min arrahma waxul rabbi rahmahuma kama rabbayaani saxiran waxtu ne dee leen ñaanal yal na leen yàlla muy fi jógee dee ko ñaanal yal na leen yàlla yërëm niñ ma yare woon bi may gone loolu la alxuraan wax lépp luñ ñu la tereet bu ko laal ndax ñoo gën a gis waasinil xuluqa bi taraxubi ubi tawaddudi ilayhim tuhba bi sëñ bi nee na bokk na ci teggin nga rafetal sa jikko ci ñëpp ci di leen yaatal ak di leen sopp sopplu ndax kon day mujj ñëpp bëgg la bu ko defee nag ni yar ak jàng laa moo tax danaa ci indi ay bayit rek yu néew ci sëñ bi wax ci njàng ndax njar ak ak jàng la sëñ bi wax waxalam bi am na man abat taxalluma waxta sibaahu sa yulaaqi na dama képp koo xam ne boo tollee ci ndaw nungu woo jàng boo màggee da ko rëccu is kullu man lam yatabaadar lil xulum maa tafarruqin laha qabla al humum falaa yanaalu gaaliban matluuba minhu walaysa yaxtawi marxuuba képp koo xam ne gaawoo njëkkante bi nga tollee ci ndaw te amagoo ay itte ak ji daal di féex rek jëm ci xam-xam bi nga tollee ci ndaw bañ wut laneen loola itteel jëm ci xam-xam rek njëkk itte yi ñëw képp koo xam ne defoo noonu la wax doo am ci la gën a not la nga bëgg ci xam-xam te la la nga xayma mit doo ko ca làq waalam bi ann al ilma bi xabsi nafsi xan xiila wa xam-xam boo ko bëggee am da ngay tëj sa bakkan bi ci xiila xaala <laughs> mooy nekk di weranteeg yooyu rek <laughs> wala yuniilu baadahu daara ahad maa lam yahab lahul jamihu fajtahid xam-xam du la may lennam fi joxoo ko sa lépp moo tax ci ndaw rek nga ci war a farlu ndax da koy jox sa lépp mu jox la tuuti kon nag fa ahatihi bila nisaahin kullaka fa lay la kashar wal tujawi bat naka sëñ bi nee ne na ko jox te bul xëccoog moom nanga ko jox sa lépp sa guddi gi dee ko foog boo toolee ci jàng sa biir bi dee ko xiifal ba toolee ci jàng ndax ab eh, moo tax sëñ bay jaxate nag tënk mm, lii sëñ bi doon jàngale ab yar li tax amul moroom day tax a gën fa sa boroom di tax a gën fa say moroom ku la yërul rekk la nax waaw ku la mayeenub junni it te fabulub yar may la it léegi nga gis junni barot boroomi yar for ko taseex <laughs> ci ñoom loolu ñu wax lépp sëñ bi lañ ko jëlee kon nag yàlla na nu yàlla dimbale ñu am ak dégg ak topp ci lii nga xam ne moom la sëñ bi jàngal nga xam ne jataay bi rek ñi muy yónni da leen di jàngal ni ki ma leen noonu ko sëñ Saliou doon wax bu la yónnee rek dalay ja yar ci yónnent bi ni nga war a def ak mag ni nga war a def ci jataay bi ni nga war a bañ a suuf ni nga boo woowee mag ni nga war a topp ci ginnaaw ndax mu bañ a xixat ñi mu nga nga jiitu ko fi sëñ mun ana mu ñëw na nga ne ko déedéet loolu lañ du kenn ñëw ko waaw moom leen ci nga xam ne kon loolu la doon jàngale waa këram ba jataayam ñi ñi tërallu téere yi ak ñi ñi ñi jëttu tëralu téere yi boo yeexee sax ñee leen di ëpp xam-xam ñoo leen di gën a xereñ ñoo leen di gën a yeewu ci wàllug yàlla waaw dañ koy ah, dañ tatbiix waaw loolu mooy tatbiix te moom léppam jàngale la man sëriñ bi am na boo xam ne day waxtaan am ko ne ko ah Mbàkke damaa ñëw ci waxtaan yi nee na mu ne sëriñ bi ne ko man du waxtaan damay jàngale <laughs> waxtaan mooy kii day wax noppi jox kee jàngale mooy ku am lu xam lu am njariñ di ko wax ñëpp déglu bu ñu noppee ñëpp jëriñ ci <laughs> kon nag yàlla na nu yàlla dimbale def ci ñun ak dégg ak topp eh, te bis bi ñuy jublu it yàlla dimbali ñu ba ñu àgg ci ak jàmm te yiw wa ci sëriñ bi di séddale ku baax ki yiw moom ciy séddale ndax ku ne lam la am na lu cër bu la defal loolee lam ci defal sëñ Abdou Khadir ñun ñi ci taatan si ñëpp baaxub sëñ Tuubaa yàlla nañu ci dimbale bañ am ca lu kawee su njort waaw kon nag yàlla na koy tiyaa ba fam ne te ñaan yi ñu koy ñaanal yëpp it yàlla nangu ko eh, defaral ñu nag ay xéewal ak mucc ñun ñe nawet nawet bi yàlla defal ñu ci lu kawee su njort ci dara ji sëriñ Tuubaa mi nga xam ne jubóo na ak yàlla daal ak sëñ Abdou Khadir Mbacke mi nga xam ne it loo itteem jëpp moo doon lu mu dégg ci yu mel noonu rek day ñaan bu nawet masaa dugg rek it itam jëpp mooy ñaan rek fu mu dégg ne maral nga du amat jaam fi déggul ñu ne ta kii na donte xamu leen waaw day laaj di ci ñaan kii nag njël rek ci njël rek ñaan naa ci di ko wax ndeysaan waaw kon nag ne ñi ngi ñaan yàlla def jàmm ci jàll yàlla def jàmm ci réew mi may ñu it bu barkeel ci barkeb sëñ Tuubaa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, bokki téléspectateurs yu Lamp Fall TV yaakaar naa ne amaat nañ bind bu bees peq ci fii jamono toll ku ne xam na ne eh, jàngale ak yare njàngum kese mu ànd takub yar ku ko def ci sam réew yaa ko yàq waaye yarub kese it mu ànd takub njàngale ku ko def ci sam réew it yaa ko yàq ndax doo yar ay nit kon day mel ne yar yooyu sëriñ bi wax te Cheikh Mamadou Moustapha mi nga xam ne loolu sëriñ Tuubaa waxoon ne eh, wallahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri sa nafin bila dararin yaakaar naa ne nit ñi toog ci ab keppaareem danañ xam ne borom njariñ lu àndut ak lor la ndax saa yu waxee nit ñi jëriñu te bu jëfee it luy jëriñ nit ak lay jëf yal yàlla dëgëral sa taxawaay te nangul la sa jëf kon am nañ ci bind bu bees peq boo xamante ni fii jamono toll ku ne xam na ne e, amub yar mooy valeur bi gën a seer waaye ñàkkub yar moom lu yomb la te sëñ bay jaxate noonu noonu amub yaree tax ñu xëy fab nit na tegg ci kaw waaye ñàkkub yaree tax ñu teggee nit ci kaw di ko caw e, sëñ Sidi Muxtaar ci kàddoom yu gàtt yu am maanaa yooyu daan wax ne ku yoruwut doo yor dara koomuti amuti teggin doo teggi dara kon yaakaar naa ne bind la bu bees peq boo xam ne kenn ko ne am nga ci responsabilité ndax fawda bi am ci terrain bi dara waralu ko lu weesu responsabilité bi yàlla teg ci euh, wayjur yi la ñu bëree bëri teggi seen i responsabilité daw ko kon nag ñi ngi ñaan yàlla suñ borom yaral ñu njaboot gi euh, jàngal leen te def leen nag dëgg-dëgg ay jullit ñun nag ñu def ñu dëgg-dëgg ay murit yu yaakaar Serigne Touba te bañ ko génn eh, seen bokk taalibe Fallou Galass Sylla moo àndoon ak yéen ci wàllu machine bi El Hadji Fallou ñu leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillahi finin الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من له